bàmmal bu xat boobu de kuñ fa suul wacca fa te nekkula la woon ci lu neex yàlla di nga rëcc la doon juddoo billaahi wa kitaab bi te nag dara dara moom li tax de moom doy waar dootoo dellusi si dootoo dellu si benn waay laay waxal barki démb nga ngapparu dama am habitude ku ma nuyu ne mbaa yëgula dara man noonu laay wax ma ne ko mbaa yëgula dara mu ne yëg naa dara kañ parce que nangam nangam tudd li nit ñi tudd maanaam ñàkk xaalis këfir ma ne ko loolu nga yëg nag ñi ci armeel yëg ku leen noonu kay di ko yëg <laughs> te dellu siwaat duñ ko gëme gis nga ñaari yëfa am jant bii di daw xam nga jant bi tey ñun ñoo ko jëriñoo ñun ñuy dund moo tax kuy dund ëpp waloor ñun ñoo ëpp waloor yëg euh, néew yi fuuf li ñuy néew lu mu mën a mën a jaamu yàlla te dee walooram jeex na ci kaw suuf yow miy dund te des fi di wax benn yoon laay laay laay yàgg ëpp waloor parce que ñoo moom jant bi tey yaakaar nga ne jant tey bii néew yi ci la ah jën yi ñuy teeral tey ci géej gi eh, eh, eh, néew yi añ nañ ci nag yi ñuy rey tey ci busiri yi gaa yi añ na ci ndoxam glace mu tey ñu ñu ko naan waaw ñun noonu naan yooyu foog na nangu nag circonstance bi wala nga dem fa la tëdd bopp dootoo naan dara yàlla mu la foofa te toogandi fii di juy kat moo gën nu góorgóorlu bu baax bàyyi suñu xel suñu borom bindu ngir neen ah yàlla bindu ngir neen li doom aadama fasu fasu space la fasu service la nangu na war doxi service waaye nanguwul war dañal ruu gu génn ak guddug xam nga ñaata nit ñaata seize euh, euh, mille nokki la nit di nokki suba ba ngoon ku ne nag ñëpp ci yem góor jigéen mag ndaw yàllaa ko réglé ba mu yem borom paxi bakkan yu yaak yu xati ci yem le ñoo yem lu ñuy génn daf ko réglé ba mu yem waxoon naa la ci joxoon naa la ci sax lu leer noonu naa la ndax pandil du montre nga ne ah kañ ma ne réveil nag nga ne montre la ma ne montre yi poche nga ne montre la ma ne bracelet nga ne montre la ma ne gën nañoo yaante kaadar waaye buñ départ yi ci midi ku fa jiitu sa morom da nga ayib mbaa ngi ayib le ndéem tubaab yi mën a rek la noonu marché yàlla kenn ñun ñëpp a yem lu ñuy xalaat juróom-ñaar fukki ne xalaat ngay xalaat suba ba ngoon seize mille nokki ngay nokki suba ba ngoon moo tax ñu bëgg lu mu gàtt gàtt suba gune dafa seize mille fois ci allah allah allah remplacé ko nokki gu nokki gu génn te fekkul ngay topp yàlla wala muy dugg te fekkul ngay topp yàlla mu ngi mel ni nga yor ay libidoor wala dollar di jaar suuf su bari te tànk boo dox am bu su fekkul ngay topp yàlla ndax fekk ngay mooy yàlla mu ngi mel ni libidoor bu ñu ruyal sottali ko ci nopp loolu bu jant bi soyee ba ñuy war yowtu yóotu néeg yi tëdd am na malaaka mu yor toroxte gor gu ñu xamalul dara rek lay rëbb waxul si ñi sa kaso ba dara am na malaaka mu yor jàngoro waxul si waa hôpital dara ki xëy liggéey yi ak ki gont lay seet malaakal mawte ngi yor fett gu rey waxul si armeel ya dara ñoo ñëpp ci ñun la ñuy wut yàlla nag mooy défendre boo ne ŋaas gàcce mu ne déedéet kooku bu laal kooku boo nee ŋas jàngoro mu ne déedéet bu laal kooku boo nee ŋas njàqare mu ne bu laal kooku ka mu la laalloo ak ka mu la teree yem ci moom am na droit ci kii nii mu amee droit ci kële te lu ko kële def kii def na ko ci coobareem rek la la defal moom moo tax boo tëddee ba fajar day wax ak yow ne la ah ponkal am na ñett yoo xam ne de bu ma ko defandul woon doo nelaw maa ngeeg mitit yoo xam ne bu ma la ko tegoon doo nelaw maa ngeeg njàqar yoo xam ne bu ma la ko tegoon doo nelaw maa ngeeg naqar woo xam ne bu la ko tegoon nga nelaw te nag amul ci dara dara lu fand lu nekk ngi dal ci sa nawle boo gënul kon nag man mi la feelgu loolu guddi gi fukki waxtu laak ñaar soo nelawee fukki yeeg benn jugal sant ma ci benn bi yomb na waay guddi douze heures de temps yàlla ne maa ngeeg njàqar yoo xam ne bu ko tegoon doo nelaw maa ngeeg mitit yoo xam ne bu ma la ko tegoon doo nelaw maa ngi ak naqar yoo xam ne bu ma la ko tegoon doo nelaw te ñi ma ko teg gënu la leen kon yow mi ma may yooyu waaye waay bu fajaree goreel waay boo nelawee onze yi jógal ci benn bi sant ma loolu nga lànk ne foog nga nelaw treize yi ba mu jeex tàkk tàkk tàkk tàkk gore woo amul a xel dafa nga ne boo reeroon bay tëdd sa loxo bii nii wi nga foog ne dafa ñor nga jam ko paaka tàkkusaan mu génne deret di nga nelaw boobu mitit kenn du ko nelawaale soo demoon bay bëgg a tëddit xale na dareet war welo na la nijaay mbaa papa oto bi fi déparé woon te sama ñoom yaay ne ci maar di taali këpp na ñëpp dee na woowu tiit kenn dina ko nerawaale ak naqar waa kañ nga dem ba reer bay bëgg a nag nag ma jox la convocation ne la suba tribunal di nga nelaw jooju njàqare kenn du ko nelawaale bii mitar kenn du ko nelawaale bii naqar kenn du ko nelawaale yàlla dàqal la loolu nga nelaw guddi gi fukki heure ak benn mën a jógal sant ma nga lànk berset nga fudd dara méttiwul te bu bu sakal demee bureau ba mbaa ya mooy da nga yeewu rek dara mettiwul waaye bu dara mettee nga dellu ci lal bi nga nga yeewu fudd yëpp baax mu ne la jukki ma door a dem ñaari rakk laa soxla matul dix minutes soxna si taxaw yor la kat man marché laa bëgg a dem gos yi ne mburu pour jàngi yàlla ne la maa maye woon jàmm taxa nelaw maa dàqoon jàqari jukki ma deux minutes rek la ñaari rakk nga xool sa montar ne damay tardé dem patron toog loolu huit heures ba midi nga d'accord du xel mu rafet du ngor xam nga lu tax nga nangu loolu patron lim bu mu la dig ne bu weer dee mu jox la ko mën naa balaa weer dee nga dee baa nga jot ci doo ko jëriñoo góor gu baax gi feguloo la yii mu la fegul jox la yii mu la jox nga gàntul ko lu tuuti loolu sam xel rafetul te doo gor nañ delloo suñu bopp ci suñu borom nañ delloo suñu bopp ci suñu jaay suñu borom na ku ne jàng fatiha ñu delloo yàlla nguuram gi nangu suñu njaam